asalaamaaleykum suñu mbokk internet yi di leen nuyuwaat bu baax di leen ziyaara di leen bëggee yi ñuy suivre sur Wassare Lamb kon ni koy waxee à chaque fois wala ni ñu koy defee à chaque fois tey nag euh, dañoo seet si mbër champion ni ndaanaan la ci lépp muy koo xamante ni l'enfant chéri de dañ koy wax mu xale boo xamante ni macha allah barki Dembo Ndiaye la bëre ak Boy Niang ba léegi li mu fi def ba léegi fàtte wuñ ko tey ñu fas yéene waxtaan ak moom mais comme que nag daa am lu xew ndax dañ koy gis moom ci ñiy sensibiliser ci la bokk muy Lac gis naa fii nag mu teg li nga xamante ni ah, li mooy won ni daal carrément ñoom message bi ñuy joxe nekkul lañ koy wax nii rek en l'air ah, mi ngi nii wedd gis bokk ca Lac de laa fekk si nag damay joxe loxo wala ndax gaa yi dañuy teree joxe loxo. <laughs> <laughs> ah waa gis nga ci la bokk. waa waa ci la bokk dañuy teg micro bi waaw Basirou waa ci la bokk comme que gars yi loolu lañ wax. Ah. waa ñu def nii rek. rey microbe yëpp. waaw ah. bi am na solo waa ne li mooy jàmm yaram Lac de Guiers 2 ndax li mu doon wax ci télé yeeg message yi mu doon joxe nekkul loo xamante ni daf ko wax en l'air ah, nekkul les paroles en l'air mais Lac de Guiers ba la dugg ci kii bi coronavirus bi ba pare ban message ngay jàllale ndax gis nañu yaa ngi teg say tool teg say affaire teg affaire yoo xamante ni macha allah gars yëpp instant bi foo dugg gars yi dañu ko gis gis nañu gel bi. waaw waaw avant tout dañuy nuyu Sénégal ah di nuyu képp koo xam ne fan sa club Lac de Guiers nga bokk. di nuyu doomu aadama yëpp bàyyiwuñu kenn di ñaan balaa bi nga xam moo wàcc fii ci Sénégal wàcc ko ci àdduna yal na ko yàlla saafara gaaw balaa dara xew comme euh, dañ ne doomu aadama set moo ko war te képp koo xamante ne yaa ngi àdduna bi da nga war a set surtout Sénégal muy corona mu am ak ñàkk corona yëpp doomu aadama dafa war a set moo waral ba nga dugg see ma ne ah maa fii comme dama laa bëgg mbaay <laughs> ma jox la nga raxas sa loxo. comme médecins yi ñoom ñoo ko digle xam na set mooy waral euh, li nga xamante ne mooy jàngor bi bañ a yegg si waaw. te sant yàlla ba baax a baax a baax parce que fii comme yàlla def na ne dëkku jullit la dañuy ñaan yàlla jàmm ji am fi ñëpp benn cas bu mu fi am boo xamante ne maanaam nit ci ñàkk bakkanam ñun nañ ñaan yàlla ñi nga xam ñoom ñoo ko jot am. ñoom ñu nekk nit yi nga xamante ne yàlla def yàlla saafara leen waaw loolu la ñuy ñaan yàlla daal ah. Aja am na solo lii nga xam te ne benn parenthèse la parce que nee naa lii kenn mënu koo négliger parce que actualité la te ci la bokk te ñoom ay porteur de voix la dañ ciy wax wax ci kon donc bu ñu ñëwee ñoom ñuy def lii rek ak am na benn message boo xam te ne ñu ngi koy jàllale yéen internet yi yéen a ma ko laajoon muy Lac de Guiers numéro 2 mu nekk koo xam ni dootuñu ko présenté kenn tey duñ fi nekk nan mooy Lac de Guiers parce que man naa la wax monde partout ah ñëpp xam nañ ko tey nag wasaare làmb dañoo ñëw fii ci këram fas yéene waxtaan ak moom ci li nga xamante ni moom mooy làmb fas yéene waxtaan ak moom ci li nga xamante ne instant bi moom moo ñëpp xam nañ ci làmb li ci daal entre arbitre ak waa CNG ak moom ci boppam ba xam nag day année blanche ou pas loolu yëpp day leer Lac de Guiers <laughs> Lac de Guiers euh, tey ñu fas yéene waxtaan ak yow ci li nga xamante ni moom mooy làmb fas yéene waxtaan ak yow ci li nga xamante ne instant bi moom moo ci nekk mais tey boo ñu doon résumé sa parcours lan nga may wax kat mooy Lac de Guiers numéro 2. waaw maa fi Lac de Guiers mu ñu ne fii di cité parcours am fii la ñuy fanaan Lac de Guiers 2 mbër la boo xam ne mbëru géejawaay la mbëru waalo la mbëru mbaadi mbandinkóol yi la mooy sax mbokk soosay mbëru géejawaay ak fij mit ak cité enseignant bi ma dëkk waaw la dëggeer de def fi parcours boo xamante ne kenn du ko naatable képp koo wax boo cité cinq mbër bi ci cité la dëggeer de kon donc loolu sant yàlla la waaw. la dëggeer wax nga ko mànni mànni kooni nga nga ne koo xam te ni casacé nga ñu ràññee la ci yow dem nañ bu mbëri njëkk ràññee ci lool ci nga bokk la dëggeer sa cosaan kenn du la kan fan mooy sa cosaan ñëpp xam nañ casacé nga mais tey sa enfance fan nga ko defee. man Thiadiaye laa juddoo. Caajaay laa juddoo maa fi maa ngi juddoo Caajaay man ak sama grand frère bi voilà euh, sama cosaan Sédhiou la waaw foofu la daal. waaw sama xale euh, presque dama ko séddale ci diggante Caajaay ak Sédhiou waaw Caajaay Sédhiou foofu laa séddale affaire waaw ba tey bu mu dugg see Dakar nekk fi. Euh, foowee école neuf te bu ñu nee école neuf rek wax nañ lépp waaw di nuyu sama copain yi fa nekk yëpp waaw di nuyu waa lañ njóobeen sama doom ndey boobu noonu maa ngi koy ziar baax baax di ziar waa école neuf yëpp bàyyiwuma kenn waaw. lak sa enfance suñu demee woon da terrible parce que ñu bari dañ naan la dangay def am kersa mais sa enfance ndax ñu bari nee nañ nekk soo tëwee am na nooy tool ruube nekk di ruube soo xawee nekk mag rek da ngay nekk complexe yow est-ce que <laughs> non dama dëgëroon bopp nag ma fii su ma toogee fii di la wax jaar-jaaru la dëgër nekkoon naa nit koo xamante ne non dégâts rek laa doon def dégâts kese laa doon def mais sama dégâts bi yëpp sama dégâts bi yëpp dama ko jaarale woon ci yoon ma jamono googu nag am na benn dégâts bu ma rappelé wu am na benn baar bu ma musoon taal mhm. parce que moment boobu noonu xam la Euh, gisoon naa nit ñi ñu ngi naan ñii ñu ngi màndi xam la jigéen ñi mara day tànn daal xam la loolu nag neexuma woon man nag sama copain yi nekk école neuf sama gars yi foofu noonu guddi gi ñu ñëw rek moo samay sens rek sànni ko ci biir baar bi waaye affaire bi tàq rek gars yi gars yi dàqe juñu mais mënuñoo xam ne ne ba léegi ne man la mais gars bi xëy suba si ñëw suñu atelier naa am na benn booy boo xam dama ko xàmmee mm-hmm. booy boobu noonu gis naa ko booy yow fi ngay liggéey ma ne ko waa fii laay liggéey mu ne ma amul keneen ko fi liggéey man ne ko déedéet mooy dem dañoo taaloon baar bi quoi ma ne ko ah xaw ba man de man mbokk man fii laay liggéey te maa ngi soog xëy si. Ah, fekk boobu frigoriste laa woon di nuyuwaale sama Ndiaye xam xam nga rek boo nekkee booy da dëng benn péru dëng boo xamante nga bu la yàlla buggee jubal la da jubal boobu moment boobu maa ngi doon xeex pour baar bi jóge fi parce que moment boobu noonu xam nga. nekkoon na li nga xamante ne bu tuñ bu ci nit ñi bu ci xale yi jubli woon de trop rek maanaam mën na yàq lu bari tey gis nga tey moo waral lii yëpp nii tey xale yi ñii ñu ngi naan fii ñii ñu ngi def naka sudul noonu loolu laa doon bañ loolu moo taxoon ma am sañ-sañu dina damay taar baar bi pour baar bi mën fa jóge pour loolu bañ fay am tey gis nga tey loolu am na fi xale yaa ngi naan te loolu moo nekkoon sama xeex da loolu moo waral la ma taal baar bi mm-hmm. waaw mais nekkoon naa xale bu terrible ma ngi dañuy wax naan boo comme boo boo dëngee boo nekkee xale moo dama dënkoon trop trop sax nekkoon nit koo xamante ne moo tax nit ñu mënuñoo xam parce que boo demee école neuf wala nga dem Canada sama gars yi nekk foofu noonu boo leen laajtee koy Papis ñu ne comme man ñu leen nee man lu leen jaaxal maanaam comme tey Papis tey la ñuy wax Papis mii tey dafa bàyyi lu bari noo kii jaaxal nañu léegi lu bari da koy bàyyi waaw léegi nga xam ne léegi am na loo xamante ne. bon mun la yóbbe fenn ah reewande mun la yóbbe fenn yar rek ma war doomu aadama waaw. jàng nga école wax nga ko ban classe nga bàyyee. man la troisième laa bàyyee ah nekkoon nit ku tëti ku dëgër bopp xeex rek laa nekkoon ci école bi mhm. damay xeex xeex maa ngi nuyuwaale suñu sama monsieur monsieur Diop Pata <laughs> si kooku moom a mës kaat ah. <laughs> ba ma kaat ba ñaari weey daje. <laughs> non ndax dëgër bopp. non xeex rek xeex rek laa fa nekkee wu. non yaa ngi may fàttali lu bari fi mu ne nii mais bëgguma nañ fa teg suñu baaraam. <laughs> sinon dinaa wax loo xam ne nit ñi ko kii ku <laughs> nga jàng école dem ba troisième ñu bari ne foofu ci bunt bi la parce que am na mbër yu bari boo leen waxee kan fan nga bàyyee seen identité moom dañ naan la euh, pala kalaasu nandite yoo xaw ma mooy sem de léegi yow nga dem ba troisième lan mooy yàq sa jàng. waaw li yàqoon sama jàng leen xam nga man dama bëggoon football bëggoon football ni ma ko bëggee woon beneen affaire la parce que dama ci doon def noo xamante man pour man sama àdduna su may réussir ci football laay réussir parce que ni ma doon def ci bal la dama doon football ba ñëpp taxaw di ma seetaan naan kii nan la ni muy def ci ball nii lan moo tax yóbbuwuñu ko après noonu école tëj rek ma ne sama papa man bàyyi naa moom la nga bëgg a def fekk moment boobu maa ngi jéem a coach football bi ma ne ko damay jàngi métier. ba ci la ma ne ah ma ko waaw mu jël ma yóbbu ma yóbbu ma sama tonton Abdou Sila kooku dama jàngal métier ba ci biir kooku tamit benn dimanche mu génn ci at am toog di seetaan marché yi gis ma ci ah ci la waxee sama papa na ko kii tey ñu ko ay xaritam na ko kii ñu ko dugaale école football ci noonu laa duggee école football nag ñu maa ngi ñaanal ki ma njëkkoon yor moo nekkoon Omar bu ndaw sama papa Omar bu ndaw yal na ko yàlla yërëm taxare ko àjjana gaañu na. Europe la gaañoo sax yal na koy yàlla yërëm di nuyu famiyam di nuyu sama doom ji fa nekk nuyu ñëpp daal bàyyi ma kenn waaw. ci loolu moo tax ma bàyyi football. les concentré wu ci métier bi ba am sama diplôme. après ci sama patron nag laaj ma nag lan nga bëgg def man ne ko man instant bi sama xel dafa ne ci bëre. mu na ma bëre fekk moment boobu maa ngi dem plage. di bërindu fa bañ may woowee foofu champion musuma fa daan dafa naa si je rappelle très bien ñaari yoon laa mës a mooy Malibu temps la bëre yi amoon foofu nag yaa ngi dégg xam euh, euh, seex yooyu def naa Pikine lañ dëkkoon ah. si je me rappelle très bien Pikine la seex yooyu dëkkoon benn seex bi laa daan beneen seex bi ñëw man ko yow laa bëree léegi mu ne ma non sama seex nga bëreel xamula ma ñëw di ko jaal doole ba ko buddi ba jiko pour dóor gu suuf mu xëj sama tànk boobu moo nekkoon sama première défaite Malibu ak beneen séeréer bu ma doon bëreel nag ñuy bëri bëri yi métti rek mu daan ma ma ne ko non doo dem te daanu ma la maa ngi moom ba timis ñuy bëree ma daan ko mu a ma nii yow foo nekk ma ne ko man fenn mu a ma bés boo duggee ci bëre di nga doon champion séeréer boobu noonu turam laay fàtte mais danaa gis ci télé nag mu ne bés boo duggee ci bëre di nga doon champion ndax bañkat nga moom mu njëkk wax loolu séeréer boobu waaw bu fekkee mu ngi seetaan émission bi maa ngi koy nuyu. foofu laa commencé nag après sama patron jël ma yóbbu ma écrit waalo comme comme. yaa ngi tëb mbër yi da nga daan dégg ko am na foo xam te ne moom mooy entrée en matière bi. muy mbapat la déggee est-ce que mbapat na. si mbapat na mbapat naa mbuur dem naa ba mbuur mbapat fa boobu temps bombardier moom moo la Lac de Guiers 1 moo mbapat boobu yaa ngi dégg bëri naa fa ba bëri fa assurance sax waaw. na assurance bi dama ko daan gars yi bañ ko maama mer daw coupé courant yi <laughs> coupé courant yi yal na ko yàlla yërëm sama maama moom taxare ko àjjana yaa ngi dégg maam maama dem coupé courant yi mer coupé courant yi ne làmb ji du fi yeggee fekk na doon mbot ma suul ko jël sama loxo bi teg ko ci loos bi rek bësaal léegi comme man maa ko gënoon njool moo jiit mu jiitu rek ma jégg ko léegi ñu ne daanuwul dañu bëriwaat rek ma déclenché après ñu ne nañ leen ko jox Alioune Seye 2 ma ne ko foofu nga yàqee jàng yi nag moo ko daan jëli bu rëy ba bëmbët ji na bërët jug nu mel ci bëre beneen affaire la non Alioune Seye 2 moo bëre ah, ko daan jëli bu rëy ba bëmbët ji na bërët jug taxaw naan booy bi fan la jógee noonu jamono googu Alioune nañu noonu waaw loolu nag amour bi mu am la quoi maa ngi koy nuyu en passage léegi nag mbapat bi nag ma commencé ñëw fii géejawaay ñuy bëre ma dem bëre géejawaay def naa euh, kan moom mës a daan mbapat euh, kii euh, Mbaye Guèye Junior waaw Mbaye Guèye Junior Mbaye Guèye bii nii bu nekk fii waaw bu nekk ci Double Less kooku daan na ma Double taa temps yi Mbaye Guèye Junior temps yi jamono pungaloon de la illa Mbaye Guèye Junior pour que daan ko problème la Mbaye Guèye moom fa daan jeex na ak kii Saaka Joor tamit Saaka Joor waaw Saaka Joor bu kii waaw moom dam daan ñaar yooyu daal laa fàttali fu ma daanoo ci mbapat après li nag ma commencé nag di bëri nag di daan après mamma ne ma oh man maa proposé loolu mamma. mais mamma dem si yàlla per Alioune lañ ma jëloon yóbbu ma ci moom. sam patron moo ma jëloon yóbbu ma ci Père Alioune Seye Père Alioune jël ma boole ma ak doomam bi ñuy wax Mafal Mafal Seye waaw kooku moo ma jël nag yóbbu ma yóbbu ma mën na ko yóbbu ko ci écrit bi ba yóbbu kër maam ma fi maa ngi rappelé ma ñëw fekk maam ma dugg fëgg ko ñu fëgg ko mu génn mu xool ma après mu waxtaan ak man waxtaan ak man après léegi mu ne ma da ngaa bëgg a nekk sax mu ne mbaa doo war wax boobu la ma njëkk wax mu ne ma mbaa doo war. ma xool ko ma reetaan ma ne ko noo man du ma warkat man ko doomu làqkat laa mu ne ma ah, ma ko waa après mu xool mu xool mu téye sama loxo ne xool sama en yi nee na en yi lay xool ko ndax mën naa nekk mbër léegi ma won ko mu xool mu ne waa baax na après noonu ñu continuer ma ma ne ma léegi booy ñëw indi la indi euh, nga indil euh, sër mètre percale yi mooy sër yu weex nga jënd ci un mètre cinquante ma jënd ko bu ngoon gi bu ma ñëwee premier jour bi ma ñëw ànd ak ma faal ñu dem géej gisuma gars yi deuxième jour yi ñu delaat gisaatuma ne troisième jour laa gis gars yi nag ma commencé ànd ak ñoom gars yi non gars yi dama mbalak naa noo ki wàcc bi bés la yow <laughs> dem di mbapati di mbapati di xool di ànd ak membre nga dem ba benn instant nag nga sentir ni carrément kon ñor nga kon xam da ngaa ñorwul woon 2002 da ngaa ñorwul woon 2005 ngay soog a ñor. après ma ñëw am Mansour ak euh, après ci laa bëre euh, man Mansour Diop li ma fayoon <laughs> quatre vingt mille. <laughs> ah waaw nu ñuy def ah. ma ba bëgg a bëre rek quatre vingt lañ ñu fayoon. quatre vingt je me rappelle très bien nag li ma ci defoon maanaam quatre vingt ñaata laa ci lekk mille francs dama ko maye saraxe ko. vraiment maama moo ma ñaanal ak sama waajur yi ma dem indi ay biteelam jox ma mu ne sa waajur ñaanal rek après ci laa joxe sama yaay jox sama papa ñu kontaan ñu ñaanal ma sama xol see dugg yi ma dem bëre daan deuxième combat ñu fayaat ma la même chose waaw troisième combat moo nekkoon Batika. Batika Eh, waxuma ko dara de Batika rek la bëreel trois. ah da ngaa Batika. jiwee ma gémmiñ ma bëree Batika oh, defe naa cent cinquante lañ ma fayoo naa ah, cent cinquante contre man ak Batika ma bëree moom daan ko du ma wax nu ma daanee mais daal daan naa ko. mais yow yow Batika yow. Batika ñimewu gi dégg nga naa mën naa ko joxaat sama revanche. Ah, bati ko borom bu baax la maa ngi koy nuyu en passage. Ah xam la ñu bëree ma moom ma daan ko. après ma ñëw am Babacar bu Faas waaw yi commencé neex nag ñu fay ma lu weex tàll. ma njëkk laal waaw lu weex. un million cinq kii kii euh, bu Faas. dañ ka teg ci kaw taal ci kaw taabal bi may ree sérieux may ree sama xol sedd guy waaye ay boo ci lekkee dërëm nga xam ne coono jeex na tey nga dee doo ko defati de ma xool un million cent nag gars ma ne ah, kontaan rek ma xam ne dinaa ci am lu bari ndekete boobu noonu beneen affaire la ma ñëw un million cinq yi jox maman li mu war a duggee ci àll bi moom moo doon dugg ci àll bi guddi yooyu noonu sama papa dem def wàllam ma may sama yaay man moom sama yaay bu amee rek sama xol sedd ma may sama yaay ñaanal ma waaw ma may ci ñi nga xamante ne boo yi nga xam ne ñoo nekkoon ci kër gi. may leen ñoom ñëpp ku nekk ñaan waaw jënd ci ay ndox yóbbu ikiri ba mm-hmm. gars yi naan seen xol yi sedd jeex na ma ñëw fas yéene préparé Babacar bu Faas. waaw ma daan Babacar bu Faas rek ma am nees nag. cum baleen Balendal Ansar ak oh jëmm jooju ma moom suñ combat neexoon. ah combat a. Hmm? yàgg nees. Mhm. nees. de boo nekkoon sa ban combat moo la gën a métti ndax sama combat ak moom. ndax la. nees gaynde la. Mm. nees gaynde arbi arbi arbi prip rek. Ah. man de pour man benn bâtiment moo war a wàcc sama kaw <laughs> rek nees attaqué wa ah. waaye xeex ma gis kurpeñ yi di jóge fu nekk. man pour man sax gaayaan daa am yuy jóge ci kaw asamaan si di wàcc sama kaw ma naan waaw nees moom ay yaram bi tàng na di rek ma topp ko ci rythme ñu xeex mais nag épercute bu mu encaissé fii xar loolu moo tax mu daanu. waaw puncheur bi nag muy jógee depuis ci contre Batika foofu la ma benn benn gain bu ma fekkoon ci oto bi may waaj ñibbi mu tuddee ma le puncheur du Waalo waaw ah, foofu la jóge la dëgër bu ñu fi nekkee di lim di lim di lim di lim day gi mais fenn rek laay kii ñëwaat mooy si calaf bi calaf boobu moom la dëgër moom toj xew xam nga ñëpp naan booy bi booy bi calaf bi boobu Père Gaston moo ko tëggoon ah. waaw Gaston moo ko tëggoon sama xuloowaale sama xarit sama koy nuyuwaale au passage. <laughs> waa Père ñu ngi lay ziar mhm. suñu Père bi nga xam ne dafa mën bés muy Père Gaston borom baax la ah? ñu ngi koy nuyu en passage baax baax. kan kan père moom day neexal làmb xam nga ay mbirum moom moom na tàng rek waaw père Gaston moom na tàng rek du yomb de moom ay mbirum moom mooy loolu ak calaf ba ma ciy dugg moom ma fekkoon suñu dëkk Sédhiou foofu laa nekkoon ma nekk fa quelque temps def naa naa fa un mois Sédhiou après ci leen dem si yàlla maam ma ñëwee feet si ma foofu mu ne ma waa Pape fi ma la benn affaire ma ne ko waaw mu ne ma Gaston day waaj tëgg benn benn calaf ce que bëgg nga cee dugg ne ko waaw mu ne ma ah, ma ne ko waaw ne ma wóor na ma ne ko bien sûr que wóor na ma ne ko kan la mu li siteel ma mbëri xam la euh, mu ne man la euh, Yékini Junior Issa Pouye Tapha Tine hmm. ñooñ boobu ba beneen kii la ñoom Zos ñoom ñoo nekkoon ci beneen euh, beneen parti waaw léegi nag mun na ma pare nga pour dugg ci man a quoi pare naa pour dugg ci mu ne ñoom Issa Pouye la ak ñoom Tapha Tine ak ñoom kii de Yékini Junior ma ne ko ah ma ne ko maama est-ce que xam nga benn affaire wallahi li may wax nii barke yonent yàlla Muhammad dëgg la ma ne ko maama mu ne ma ne ko gars yi dinañ nax seen bopp mun na ci naan ma ne ko parce que dañuy yaakaar ñoo ma ëpp doole ñoo ma ëpp ñoo ma ñoo ma dàq xeex ñoo ma dàq bëri fi ñett yëpp dàq ñu ma ko te ëpp ñu ma ginnaaw noonu maam ma ne ma xaaral dinaa ci wax fii ba ci kanam ma dugg ci biir géej gi génnaat maam ma ñoo ne ma nii dugal nañ la ci kalaaf gi waaye ba mu ne ma dugal nañ la ci kalaaf ne ko ñaata lañ fay mu ne ma vingt noppi moo doon riir. <laughs> que moment boobu noonu dama doon dégg mu ay vingt millions ay trente millions ma waaye mën na ko déggu ma mun ma vingt millions na ko vingt millions yi boo xasee ba laal ci dërëm tey nga dee. Hmm. waaye rek ñu ne ma dugal nañ ci yëg gars yi def ma tokaar nag man moom tokaar lañ ma defam boolewuñu ma woon sax ne dinaa jël claf bi ñu ma xel moo taxit ma ñëw dajeeg Yékini Junior boobu ma bëri woon neuf combats neuf victoire man ma am cinq combats cinq victoire ñu bëri ma ak moom ma daan ko ma am tafaatin Tine bëri moom tamit daan ko am Issa yi maa ngi koy nuyu Issa yi comme boobu moom moom nee na leen dafa jékki-jékki rek gis boppam ci suuf. non Issa Pouye dafa moytu woon sama kuudu moo tax dafa ragal. ndax mooy yow Issa man maa njëkk a feeñal secret Issa ba ma jour boobu ñuy bëri noonu man maa tey tey yokk sama uppercut mu jóg ci kaw. non dama xàcc uppercut dur uppercut yëkkati uppercut ci kaw rek Issa bi li ma bëri <laughs> ma ne ko tey nga dee dootoo defee dootoo ko defati ba muy ñëw nag ba muy ba muy daw di ma song dafa gëmm dafa gëmm dama dajeeg moom ci suuf. dëglu tapet boo ko bëggee kii rek soo kiwee kuu rek day gëmm kon tapet day gëmm. am na ñoo xam ne ñemewuñu kuu de am na ñu bëri ñoo xamante ne ñemewuñu kuu waaw yu bëri yoo xam ne ñemewuñu kuu euh, gis nga lam ñi ci am fit dañ leen di compter ñi ci am fit xam nga borom fit mooy lan mooy ki nga xam dañ leen di dóor tel kuu sa r xotteeku wala sa tuñ xar wala sa bëñ damm nga ñëw gérer ko. taxaw bëriwaat xeex ak waaje koo koy borom fit mais am na xam boo leen dóoree rek teel ku da gis jékki-jékki rek dañuy pat bu ñu lay song sa ko duñ ko tay mooy waral ñuy juum waaw làmb moom boo demee ba dugg ci moom ne la wóor na boo duggee rek jàppal na yow borom fit nga war a doon waaw ndax boo bëggee dem fa nga doon borom fit ma daan ko mu nekk ci télé rek naan ma gisuma gisuma gisuma ma ne ko gisoo ma ta nga moytu sama coup ah gisoo ne booy setaanaatee dama dóor pare moytu coup mm-hmm. mun ne gisuma ma ne ko ah kon baax na kon bés bu ñu dajawaatee fara yàlla def gis nga ba dajawaatuñu. kan Issa Pouye si dama ko rawee sax dafa bari mm-hmm. dem naa bàyyi ko fa mu ngi mu ngi sama ginnaaw bu ma gëstoo nii fële laa koy seen instant bi sama gëstoo nii nii non waxuma mu ngi ci saako yi nag mm. mais nii nii nii nii nii ah nii nii sama gaynde kooku moom dem naa bàyyi ko ci yoon bi hmm. waaw. ma dem tonton Zos <laughs> tonton Zos laa dem. ci tonton Zos laa dem. Hmm. <laughs> mu ne bëreet moom borom cinq borom six secondes yi sama copain maa ngi koy nuyu. six secondes la. colomaritrel sa porte euh, sa portable sa nga xëcc nga taal kii bi combat bi 6 secondes du 9 secondes sax gars yi dañu naan 9 secondes waaye 6 secondes la. yow bàyyi ma yow da nga bëgg a mbalak Zos man mbalagu ma Zos de. sama xarit la sama waay la. Tima eh, Zos maa ngi lay bëggee bu wér a wér. mais béréb dib la. Zos dama ko daan rek mu yedd mu ne bàyyi naa bëri Zos sama waay la nag maa ngi lay nuyu passage. Ah, Zos bu sa waay di nga ne nag. ah Zos ni mu songee moo baaxul di moom tamit. kan mooy songee noonu. Hmm, nga song ba daw def nii yóbbu sa yaram bi non foofu moom mënu ma xam taxam gëm na wala gëmm mais ni mu songee moo baaxul gis nga buy daw di ñëw day oyof moindre mouvement rek da ngay dem waaw song bu lay wóor a booy song na la wóor boo nee këy nga am li ngay am waaw boo ci génnul da ngay taxawaat. boo xam ne bu ñeenee nii dangay dem après maam sama papa Moustapha Gueye moom moo ne woon ku jël kalaaf bi. moom may la chance. waaw connaissance bi bari na xam la nit ñi xam nañ la xawma nag à part de extérieur xawma mais Sénégal nit ñi dañuy xam na ne kii moom moo jël classe bi. waaw gars yi bàyyil xel mbër yi xam ne kii moom mooy Lac de Guiers 2 waaw ma ko jëlee nag bon kontaanoon naa. parce que nekkoon na kalaaf euh, bi nga xam ne dama doon rêvé daan ñooñ ñëpp pour jël ko man sama bopp waaw. nga dañuy dégg nga koy wax nga ne Moustapha Gueye suñ pap Moustapha Gueye ñu koy nuyuwaale au passage moom moo ne leen ku ci jël kalaaf bi rek pare na pour may la chance bañ la waxee euh, yow ak Moustapha Gueye après loo yëg. waaw xanaa kontaan rek parce que euh, nee naa man ci làmb ñaari yoon laa ci mës a jooy làmb. benn bi Alioune Seye de Moussa Ndoye sama ronga wadd na Lac de Guiers 1 boobu la sama ronga njëkk wadd ci sat ci laa taxawee maam ma ñëw sama wet na ma nañu dem mu mel dañ maa pointé fi ma taxaw mooy bañ da bañ daanee Lac de Guiers bëgg Moustapha Gueye daanee prise bi ma taxaw sama ronga ñi wadd mam ma ñëw ne ma ni yow rek yaa ñu mën a fajal gàcce ngir waalo après ci laa ko waatalee maam ma man ne ko bés ma fekkee Moussa Wagué ci làmb ji dinaa ko daan barke yonent bi après noonu ba ma nekkee ci claf bi di préparer claf ba jël claf bi avant ma jël claf bi dama déggoon Moussa Wagué ne ku jël claf bi ma may la sens rek ma accéléré waat entraînement yi pour bëgg rek jël claf bi rek bëgg a daje moom parce que sama rêve la woon pour dajante ak sama papa Moussa Wagué ma nekk di accéléré entraînement yi nekk ci. ba yàlla def ma jël classe bi nag léegi nag mu des nag sama digganteeg moom nag ma dégg mu ne pare na pour bëreeg la de guerre pour may ko sens ah ma ne man tam pare na boobu moment boobu sama rêve la ma bëreeg moom far yàlla def nag ñu jaw daje ma ak moom ma liggéey ci liggéey métti hmm? daan ko. non man duma ma bàkku euh, du ma daan mu bër na man champion laa déedéet man bés bu ma waaw ku daan champion nga ne champion mais man bés bu may wax ne man champion dëgg la bés bu ma jëlee roi bi ne dinaa woon champion la mais guddi yi pour man nekkaguma champion damay bëre nii pour bëgg doon champion te boo doonee champion boo téye roi rek boobaa mën nga taxaw nga ne champion nga te guddi yi loolu mooy sama réew bu ma téyee roi bi nag boobaa dinaa man champion la non nekkaguma champion waaw demi champion la nga bëreeg euh, ki nga xamante ni nag euh, moom mooy suñ papa Tapha Gueye nekk champion gars yi di la bàyyi xel ñëpp jox ma Lac de Guiers jox ma Lac de Guiers parce que dañ naan gars yi mbër bu amagul defet gars dañ koy bëgg a ñam xam kii faiblesse am fu mu nekk ba nga pare ci papa Tapha Gueye foo jëm ba mu pare ci Papa Moussa Gueye ci Morodi laa dem Morodi Baboy Baboy waaw daan ko pare mu ne daanu ma ko ci moom laa dem uh-huh. bëreeg moom maam fa ndam mu amul ndam après gars yi kat sa verdict bi waaw drapeau mu ngi fii ci biir Baboy ah. mu ngi fii de. <laughs> du ko fi jëlee de tey du ko fi jëlee xanaa ñu bëriwaat maa moom. <laughs> loolu moo Omar du ko seetaan <laughs> loolu moo loolu moo ah. Omar du ko seetaan. ah boobaa Saalum Omar kay la dem bëree ko moom. Ah. ah pour affaire bi leer kay foo ñu bëree ko Omar. ma jugee ci baaboo ñu dem ci kaa. ci baaboo baaboy après ñu dem ci laqal gi ma dem ci laqal gi kii am ama seen ama seen la nag kooku kay moom léegi la ama seen dafa sonal waa géej waaye lu leen metti am ma leen ko teg ama seen xujja ah seen xujja ama seen gannaaw maa ngi ne nuyu au passage. waaye suñu jabar jooju nga naan séeru xujj xujj la xujj xujj bi yoonam nekku ci génne ju xujj. ma rek tay leen sonal nag wax dëgg yàlla nga bëri ak Eumeu Sène. ah waaw ma bu metti sax mu sonal ñu trop toog suñu baxu bakkan ne duñu bàyyi ñu nooy ah waaw baax na dinañ dina dinaa nooyi de xaw ma kan waaye ci kàttanu yàlla man dinaa nooyi. loolu rek laay wër fu mu ne nii moom ma gën a loo gis si kër àdduna. ma seen. wallaay. dama dama bëgg ah. li ko Moodu def moom mooy. c' est pas question du Moodu lu mu ko def. li ko Moodu def loolu moom ak Moodu la. mais bii bii Lac de Guiers 2 la maanaam daf ma ameel bor. daf ma ameel bor. waaw te bor boobu xanaa nag mënu ko yóbbaale noonu. Ah, non bu ko defee rek defet lay doon ci man. waaw. te bëgguma ko bëgg naa bëreeg moom trop sax waaw ma seen borom du tane day wér rek <laughs> mbaa mooy loolu kon bi euh, de Guiers ba doon bëreeg Eumeu Sène ak bii am na différence waaw jamono googu noonu ay booy lañu woon doon demee fugg non ma moo ñu daf ñoo nax waaw daf ñoo nax de mais gudd yi mm. laay dootuma naxaat lan nga laaj ban ci dama nga ne Eumeu Sène ndax la dëgg am na doole. Ah, du question du du question ay gàllaaj ak yooyu affaire bi entraînement la entraînement yi yàlla yàlla coono lay faj nga yàlla coono lay fay mais bu ñu dajawaatee suñu combat boobu na neex de waaw dina neex trop. non non c'est pas question daja wax xam na ni rek bor gi mayor yor dina ma ko fay ci kàttanu yàlla dama ko xam rek fu mu ne nii moom a gën a loo gis wallaay moom laay réeré fam mu ni nii bëreeg moom de. teg nag muñal nag. Ah, muñal googu noonu onk naa ko ay deux semaine et quelques. metti na de waaw loo xaman ne bëggoon mu bokk sa vie day am loo buggul mu am yàlla dafa naan la day am mais na nga xam ne koy gérer waaw am na mu nekk loo xamante ne bon metti woon na parce que c'est la première fois mu am ci sama at waaw waaw ak ni ma daanee ba daan boo xaman dañ naan lii wala laa leer na wala ah, mais garaaw la. Ah, mais en tout waa xam nga ay ñoom Babacar ay ñoom Sitor temps yooyu ah, yàkkamti mais nag dégg ngeen <laughs> arbitre ngeen fi lu ne ndeysaan kenn du yéen euh, la dégg hmm. euh, beneen bi mooy euh, ba nga jógee ci loolu noonu nga nga bëreel nag wax dëgg yàlla. sax su sax da koy tooñ ñu bari sax léegi tooñ bi ci yow lañ koy jëlee Modou Lo euh, l'enfant chéri de Parcelles notre nouveau roi des arènes bëreeg yow lag de Guiers di bëreeg Modou Lo gaa yëpp di séentu Lac de Guiers ñëpp naan ay du tey du doy Lac de Guiers ñëw kenn xamul daa mas niil ndax gaa yi tax yooyu sax la lañ ko tuddee commencé naan Lac de Guiers moom mooy roi match niil nga bëreeg Modou ah ak dinañ si ñëw rek de guerre waaw première match nii parce que ñu bari fi ñu xaare woon Lac de gisuñu ko parce que boobu gis sax doomu ndayam Balla Gaye sonnu ñëw naan dem nañ ba benn instant ñëw waa géej waaye ne sot ñëw naan ko téye ko ay Modou bi nag dafa ës de nga ñu bari yaakaaroon sax Lac de Guiers day ñëw taxañ taxañee booy bi nga ñëw match premier combat bi yéen ñaar yaa ak